من ظن أنه يكون أبدا مضي بما كخدمتي بدا فقد والدلال والدلال ينقاد لي منه بلا ليل مدى وقبل لدى لمبر ولي مدى ونات مدي كل ولي مدى ومدى لدى ما ينبغي مها عيوبي وكب زنبا مدات وإن أناس قلوى مدا كفاني العدا والبلوى أتى maa lay sant bu baax te di gërëm di bëgg lool ci sama teewaay fii ndax fii dama fay war a teew ndax ni mu demee waaye war naa fee teew ngir yéen ñii si seen taxawaay ci sunu wet ci sunu waajur wu góor la tàmbalee woon seen kóllëre defe naa réew mépp xam nañ ko am na ci jamono yoo xam ne sax jamono yi gën a xat ci jamono wax dëgg yàlla taxawaay ba ca moom ñëpp a koy fàttali nun nii wax dëgg yàlla buñ dee dox ba nëgën yàlla ak seen jëmm ji a tax seen jàppale seen taxaw moo tax ñu ñëw di la siyaare di siyaare ci bis ñaan ngeen yàgg fi tëwër te di leen wax nii kat ay dongo lañu yéenay suñuy sang ñu ngi ci seen wet lu leen bëgg rek lu leen du ko waxee te nu man ko te te lu ngeen nu wax rek nu man ko nu def sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu ngi nuyu sëriñ Saliou Thioune ak délégation bi mandal yëpp di ko sant bu baax di ko gërëm ci kàddu yi ndax ndax yeex ngaa egg si waaye sa jëf moo fi jiitu. sa waa it ñoo fi jiitu. ànd ak ñun liggéey bépp. te loolu jëkku tey. la sa waajur jàppoon ci moom. ba àdduna sépp xam ko. danga koo jàpp. doolu ci sa jàppuk bopp. kon ñaari jàpp la. loolu yi nag yëg nañ ko bu baax a baax. ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm. di gërëm sa kilifa yu tedd yi nga fi dajeel. muy sëriñ Abdul Xadim moom sëriñ Cheikh Saliou. ak sëriñ Abo moom sëriñ Cheikh Saliou. sëriñ Cheikh moom xam nga ne baaxoowut sax loolu. waaye yëg-yëgam. ak luy nuru aada. moo tax mu def ko. ndax ndax naka jekk. bu doon lu ñu warlu ci yoon wi la. lu ñu woote ci yoon wi. mu war faa yónnee. danaan ko boo fa teewee yaa ma fa teewaaleel. loolu yi lay dund ci digganteem ak moom. ñu koy sant moom Serigne Cheikh bu baax a baax. waxuma sax sama digganteeg moom. ndax loolu def defa suñ boroom la. waaye taxawaayam ci yoon wi. waaye taxawaayam ci yoon wi. ñëpp ko war a ñaanal.

ginnaaw Serigne Saliou doole moom doo ko ci ginnaaw Serigne Saliou kurul moom Serigne Cheikh doo ko ci xamaat. ci kaw suuf. ci kaw xam moom sëriñ bi. boobu taxawaay nag. defar ci jàkka. lim defar ci ay jàkka. te musu koo woote. te musu koo woote. bu koy inigéré sax du bu koy inigéré sax du ko yëgle. kon moom li ñuy wax ixlaas. kon moom li ñuy wax ixlaas. man dama koy jàng ci moom. moom man dama koy moom da koy jàng ci Serigne Cheikh. ndax li muy dund da koy dund rek. boole ci itam nag. boole itam. nangoo liggéey. nangoo liggéey. ba lépp koy defal ba lépp moo koy defal boppam. ay forage sax am na machine bu koy gas. ay forage sax am na machine bu koy gas. ba ci ay yoon yi yoon yi xëttee daara yi sax da koy defal boppam. ba ci yoon yi nga xam ne mooy xëttale daara yi sax moo koy defaral boppam. am na ci dëkkam yoo xam ne moo fa yóbbu courant ci xaalisam. am na ci dëkkam xam ne moo fa yóbbu courant xaalisam. kon kooku taxawaayam. kon kooku taxawaayam. nit ñi sax xamuñu ko. nit ñi sax xamuñu ko. kon Serigne Saliou ñu ngi lay gërëmaat ci loolu. ndax Serigne Cheikh. ndax Serigne Cheikh. ni ma la ko daan waxee rek. nit la koo xam ne. nit la koo xam ne. du woo kenn. du woo kenn. waaye ci dëgg rek lay waaye nag ci dëgg rek lay ànd nit. ni ngay te gis naa ni ngay góorloo ci moom. di dàkk ak bëggam. di jëf jëm ci moom. di jëf jëm ci moom. sama digg ak yow door a ñëw. kon sant nañ la bu baax. nii nga koy defee ci màggal gi. lépp lu xew rek noonu yi nga koy defee. tabaski moo ci mujj. yaa ngi fa indi. xam naa da ngaa tànn yi gën a rëy rek xam naa da ngaa yi gën a rëy rek indi ko. màggal Touba ak lu xew rek. ak màggal Touba ak lu xew rek. ak liggéey yi ma la sant nga di ma ko defal. ak liggéey yi ma sant nga di ma ko defaral. kon loolu. dañ lay bàyyi ak Serigne dañ lay bàyyi ak Serigne nga xam lu ñu nit di jëfal rek lépp lu ñu nit di jëfal rek jëmmi Serigne Touba tax. yàlla na la dolli kattan. yàlla na la dolli kattan. dolli la wér. ba nga gën koo man ba nga gën ba ndigal lu egsi rek. ba ndigal lu egsi rek. ca sa baay daan jëf. te yaa ngi góorgóorlu. fii yaa ngi góorgóorlu. te yaa ngi góorgóorlu. te yaa ngi góorgóorlu. ba daanaka dabu ba daanaka dab nga ko. yàlla na ko weesu ful ko ay yoon. yàlla ful ko ay yoon. ba weesu ko. ba weesu tam yàgg ci say loxo. ñu ngi nuyu taala sillam yi. nga xam ne ni ma ko waxee woon keroog rek. yàlla miy def. sëriñ Touba day tànn di boole. moo ko boole moo ko boole jëmmam ju tedd ji. mu ñëw ko ngir mu ñëw doxale boppam digganteem ak sëñ Touba moom sëñ Basiiru ndax moom kat nee na matut kenn ab sëriñ sëriñ Saliou da daan wax ne bu ma déggee ne diw sama taalibe damay tiit bu ma déggee ne nit sama taalibe la bu sëñ Saliou neen bu ko mosaan dégg day tiit ndax nee na ab taalibe sëriñ Touba rek ko am yi ci des yëpp ay bunt la rek nee na ci làmmuñ sëriñ Saliou la ko déggee te daana ko wax lu bari ku muy nub jataayam dégg ko ci moom ñi ngi nuyu sëriñ bi teewal fi sëñ Ahmadou. teewal fi sëñ xalifa sëñ Moustapha Massamba. xalifa sëriñ Moustapha Massamba. ak njabootam. ak xam nañ fa seefam. ak dogoom ak dogoom. ak njàmbaaram. waajuram dafa jàmbaare woon. waajuram dafa jàmbaare woon. boole am xam-xam. boole am xam-xam. nangoo liggéey. nangoo liggéey. am fulla am pësteef ci yoon wi. kenn mësu koo ñaaj. kenn mësu koo yab. waaye nag na leen ci ñoom ñii. sëriñ Cheikh yow itam ñu ngi lay sant. di la beral sa cantuk bopp barki démb rek laa koy wax nit di yéem sa pëstéef ndax li nga doon ci sëriñ bi te bu la neexoon jàpp ko te yam ca mu doy la sëkk kon nii nga ñu def di nu fonk ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa loolu yéeg nañ ko te rëy na ci nun ñi ngi koy sant yàlla bu baax di ko sant Sëriñ Tuubaa di ko dugal ca ànd ba Serigne Touba àndoon ak seen maam ju tedd ja Cheikh Massamba di ñaan bu baax rek ñu yàgg fee ñëw te yàgg ñu fay fekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah